ñaari waajur di nuyu waa parcelle yëpp gis nañ ni ñu génnee jàppale Belende parce que lii moo war ko parce que waaw soxla na amul lu ma ko wax incha allah rek bu dëgëree moom barke Serigne Sall dañ koy bu daal. kan si Bour Sine Bour bu dëgëree moom bi laa. bu dëgëree moom en bi di. Ah. waay la la waran ko waran ko géej waay Pikine géej waay Pikine géej waay la ilaha laay waay baax na xale yi ngi rendo la ilaha illallah la ilaha illallah kon nag ñu koy la ilaha illallah la ilaha illallah waay ay kurpañ yi ku la ko waaye yow bu daroon Bamba Thiam jëm. ñaari xale yi ñu xeex ba daw gën. avertissement. ku yee bari. laa ilaaha illallah daw na génn. oh, oh. piki na nañ lay lay. booy waranka. booy bii. ah ah wane na ko. wane na ko. wane na ko. waaye mi ngi bëri waaw waaw. ku yi moo ko jëloon lamb ku jeex na mbuuba jeex. laay dëgg la. ñëpp ko mën a dëgg. waaw ndax dana delloo buum ca mbay mbay ga. ah war na koo def ndeysaan ripp bi xaaxaam. bay waranka moo ñu woon ginnaaw mbokk yi jëm kara wala combat xale daa war a mer nii. waaw waaw yow tamit nee naa la xale saa bu ñu tëgalee boo ñëwee. waaw war a wane sa bopp. dëgg la ci bis yu mel nii. waaw da ay champion yoo xamante ne ay ndaanaan lañu ci wàllu lamb bëgg nañu combat mënaguñ koo am. lu leer bu la yàlla dimbalee ñu tëggal la sa combat ñëwal nga wane sa bopp. laay amateur yi mën na li jëm ci xëccoo réew mi waaw muy élection présidentielle defe naa ni tey la 10 ñu jëm ci fan yi néew ñu teel a départ rek xool tey ñaan jàmm ci réew mi. waaw que le maire gagne. waaw loolu daal moo jàmm réew mi daal moo jar ñaan. dëgg la ndax réew bu amul jàmm. déedéet du am stabilité. déedéet réew. bu amul jàmm du am tranquillité. déedéet kon ñu ngi ñaan. yal na yàlla sunu borom def jàmm ci réew mi. amiin waay élection yi laa ilaaha illallaah. laa ilaaha combat bi lu leen fay jar na ko. la ilaha illallah. fii seen contrat. Blindé Bour Sine arbitre ba sifflé na. Blindé Bour Sine. Blindé ngi demee latéral. Blindé ngi demee latéral. Blindé Bour Sine. Blindé ak Bour Sine. Blindé ak Bour Sine. Tapha xale la Bour Sine daw na Blindé ñam na ko Bour Sine Blindé Bour Sine mu daanu jël gaaw vite fait bien fait Blindé dóor mu daanu Blindé dóor na mu daanu Blindé dóor na mu daanu Blindé dóor na Bour Sine mu daanu Blindé Blindé Bour Sine a ngi nii ci géew bi beneen ne Bour la laa ilaaha illallaah na ko bu ñëw way entraîneur bi nu muy def ni benen ne Bour combat bu gaaw combat bu gaaw benen ne benen ne Bour benen beneen ne benen Sine beneen na Bour benen beneen ne la Sine laa